abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir yu wér te wóor aju ci ci bitim di pointer seeni point faible yi nga xam ne manquement wu doomi aadama la parce que mm-hmm. doomi aadama aadama yetu mm-hmm. képp ku ci jaar rek doo mat parce que doomi aadama waxtu bu matee ba génn aadama rek mm-hmm. nekkatul nit donc ku nekk ci ñun rek am nga ay rëcc-rëcc ñoom au lieu que sawaroon ci poser la débat ci bilan président Macky Sall dañ préféré woon di tudd rëcc rëcc doomu aadama yi nga xam ne ñoom muccuñ ci kenn muccuñ ci. Mhm. malheureusement gis nga débat boobu fu mu indi tey réew mi. et ñoom après ñooy ëlbatikuwaat di crier naan Sénégal daf commencé perte ay valeur mhm. alors que mën nga ne train bi indi loolu locomotive bi ñoom maam ñoom ñoo ko doon dawal. Mhm. président Macky am na bilan matériel. am na bilan matériel waaw réew mi ku fi yeew. gis am na lu mu soppi lu bëri ci xar-xaramu réew mi. ok def na lu bëri ci wàllum infrastructure def na lu bëri ci tali. Mhm. par rapport ak sous région bi ak lim fi fekkoon. ok bëri na zone yu bëri yoo xam ne dem beeg dikk bi yombul woon jokkale na ko. Mhm. waaye à quel prix. à quel prix. ak ñan ñoo réaliser réalisation yooyu mu def. maanaam mhm. mais d'œuvre bi ñan ñoo ko réaliser. ok xam nga su fekkee ni. président Macky tey bu fi ganam ñëwee. Mhm. mu ànd ak yow jëlee la aéro jëlee la aéroport Diass. ngeen jël autoroute à mhm. jaar ci tali ñëw ak si pale di ngeen ne kii defar na réewum. Mhm. waaye ba ñuy defar réewum kan la ko jox. lii mooy laaj. ok ndax bu fekkee ni réew mi moom bi muy ñëw. fekkoon na fi ay jàmbaar yu mel ni docteur par exemple. nga xam ni tey secteur bi mu nekk. ñëw na concurrencer créer dara. Mhm. rivalité ak étranger yi fi nekkoon. ndax secteur la boo xam ne mën nga ne structure yu bëri ñu ko fi doon moom doon na néew doomi réew mi bokk ci. Mhm. souvent ay étranger nga doon dégg. on ne stigmatise pas mhm. dañuy wax les faits. donc ñëw na créer dara est-ce que état bi accompagner na ko ni mu ko war a accompagner. est-ce que état bi nga koy faciliter yenn euh, yenn accès ci yenn matériels yi wala yenn maanaam. yenn jumtukaay yi nga xam ne mu ngi koy soxla. Mhm. loolu danga koy mun a laaj ci ki nga xam ne moom tabaxkatu tali la bi fi régime wàdd bi di dem. Mhm. travaux yi fi amoon ñaata patron d'entreprise lañ ko joxoon ak léegi ci régime bi fi nekk pour pourcentage bi dafa yokk wala dafa wàññeeku. Mhm. parce que bi président ñëwee léegi man capitaine d'industrie yu mu xamoon lu bëri. ñenn ñi tëj nañ ñenn ñi génn ndekk. d'accord ah waaw xam nga tey. tey mun nga jël tey la kaa ku mel ne tey Aliou Sow nga Aliou Sow c'est un national. Mhm. mais est-ce que mi ngi gis boppam tey ci chantier réew mi ni mu ci waroon gisee boppam. ok mun nga tudd keneen ak keneen ak keneen bëri na ci ñoo xam ne tey ñenn ñi toxal na seen capital. <coughs> fii ci yeneen dëkk Afrique. Mhm. ñeneen ñi wàññi nañ seen personnel. ñenn ñi seen chefu ñi nga xam ni ñoo dirigé woon seen entreprise maanaam chefu travaux wala chef projet yi yeneen entreprise yi nga xam ne ñoom la ñuy concurrencer di ay étranger débauché seen nu mu tudd seen i nit. Mhm. parce que tellement mënatuñ leen téye ñee dañ leen offrir maanaam plus. Mhm. donc li ma ci jàpp mooy le président am na bilan matériel mais réaliser wu ko ci li ëpp ak ay sénégalais. ok xaalis bi dafa génnaat dëkk bi. Mhm. moo tax sénégalais yi na dëkk bi dafa màkki. xam nga président mi ngi lay wax ne la man li ma def ci dëkk bi. loolu indi dëkk bi dafa màkki. ba léegi sénégalais yi. mënuñ gis man li ma def. mais parce que xaalis bi delluwul waat ci réew mi. ok parce que su fekkee ne yow créé nga ay. projet yu bëri xaalis bi ay étranger ñëw jël ko capté ko dem indi seeni expertise ak yëpp jël quelques main d'œuvre sénégalais. Mhm. xaalis bi du fi des. donc yow li ngay réaliser yëpp dëgg la nit ñi dinañ ko gis mais sénégalais yi duñ ko yëg. ok te loo ci mënti dégg tali rafet na terre baax na. Mhm. Euh, nu mu tudd train express BRT yu yëpp baax na. Mhm. mais sénégalais bu xi bu xiif. soxlaam fajuwul am jàqare am jàqare dugal ay doomam école mën leen fayal am jàqare mën éduquer ay doomam parce que loo ci munti dégg dafa am loo xam ne mooy base bi mooy biir bu deful dara du taxaw ok nit du xiif di jël ay teer di ko bégee mais su ma la déggee dafa mën ni mhm. euh, bilan président Macky Sall mhm. su ma la déggee si yow mhm. ci ay tali la waaw def na infrastructure def na tamit ci social mais loolu doxalul réew. Mhm. parce que social nit ki day ñëw tàllal nga sànne ko dara maanaam nga sarax ko mais kooku après est-ce que mën nga dëkk ci di ko sarax. est-ce que mhm. yow mi koy sarax doo mujj di saraxu yow. Mhm. li mu waroon def mooy créer loo xam ni maanaam ay day jur ay emploi ndaw ñi gis ci seen bopp. secteurs yu diversifié. mais tey Sénégal quatre-vingt-dix pour cent jeune yi nga xam ne newuñ ci entreprise wala newuñ ci société. luy seen activité cag kon nga xam ne liggéey bi amut ñoom ñoo dem créer loolu mhm. du sax état bee leen accompagner ñoom ñoo ko dem créer mhm. gis ni dëkk bi euh, euh, euh, fluidité bi demeewul noonu ñu mettre en place benn service service boobu dem ba jur tey benn transport mhm. yaa ngi gis tey Dakar xale yi. kon ay yooyu noonu financement jeunes yooyu. kon jeunes yi gisuñu dañu am préférence ci seeni militants. ah bon ah bien sûr loolu ñëpp a ko xam. président moom créé na ay structure waaye ndax ñi mu ko dénk financement bi ñoom amul nu mu tudd euh, ñoom am nañ xàjj ak seen entre population sénégalaise bi. Mm-hmm. parce que souvent ñi muy dénk yenn responsabilité yi dañuy jaawale ñoom seen responsabilité ak seen casquettu responsable politique. tey yow leer na la ni am na koo xam ne tey du dugg nu mu tudd am na yenn services yoo xam ne mënu ci accéder ci état parce que c'est un opposant ok la preuve ñaata yoon ngay gis ci télé nit. di contre régime bi wala di wax ne régime bi deful dara ñu ne la pourtant jot nga financement nangam. Mhm. lan moo leen boole financement boobu da nga ko jot en tant que citoyen sénégalais bu bénéficier ci apport boo xam ne benn structure la sa réew mettre en place foofu amul couleur. Mhm. mooy li may faral di wax état l'APR wala le Benno dañoo jaawale l'état ak leur parti état siège am du Mermoz mhm. état couleur du marron yaa ngi comprendre état amul xàmmee entre militant Pastef ak militant Benno ak bu taxaw. Mm-hmm. ñoom ñëpp citoyen sénégalais la mais Ousmane su ma la déggee damay am jaaxle damay damay c'est c'est grave. en 12 ans dëgg bëgg wax ni ne Macky def fi maanaam li mu fi def. ci def na <laughs> ci ci ci la yem ci ay. guerre la yem non def na no mm-hmm. def na. def na jéem na. Mhm. man li ma jàpp def na jéem na gurgul na def na sax plus. Mhm. mais est-ce eu les hommes qu'il faut. Mhm. ba ñu traduire moom li Wade waxoon ci moom mooy su ma amee mbébét sax mu traduire ko en acte est-ce que moom président tey mun na wax loolu ci ay nitam. parce que président rek mënul def. munta wax ak ñëpp mënul accéder ci lu nekk. day initier créer dénk mais kim dénk est que doxal na ni ñu ko war a doxalee. mais yow un ministre boo xam ne munoo discar nu mu tudd mënoo dissocier euh, liñ ko dénk ak couleur politique yow jeunesse da wax ak moom sax mu ne la parti nangam nga bokk. Mhm. waaw kooku moom est-ce que buy dimbali. wala buy accorté ay sër wala buy fexe ba doxal liggéeyam bu identifié ni diw fi la bokk est-ce que dana ko doxal ni mu ko war a doxal donc ci gàttal daal li ma jàpp mooy le président il a un bilan matériel en termes d' infrastructure réalisation bi defew ko ak secteur privé national bi mhm. moo tax daal impact bi sénégalais li war li war a laaj boobu mooy impact bi mais la preuve vécu sénégalais mais tabaski bii ñu romb mhm. mais est ce que nekkul tabaski bi gën a catastrophe ci dernière décennie lan moo ko waral ak président ñaata milliards la injecté ci réew mi pourquoi ressentir bi sénégalais yëguñ ko ren tabaski bi ñaata sénégalais jëndul xar